ñuy li ñu tax a teew fii rek mooy daanaka ku ne xam ne màggal gi jege si na ba jege si na ba pare te yaakaar naa ñun woote bi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo woote benn te ku tedd ki moo ko woote yaakaar naa moom ñëpp kenn mënul ci jeewaar kenn ñëw leen santal ma suñu borom Serigne Touba nag wàcceew na ak ñun yaakaar naa bu nee santal ma ñëw leen santal suñu borom ku ne xam na ne nan ko war a defee ñun ñëpp war nañ koo xam muy sell jàng alxuraan jàng xasida ak bernde man nag li tax ma gën a ñëw ci li tax ñu gën a ñëw mu ci soñe bi mooy programme bi nga xam ne si moom lañ def ak barab bañ koy defee incha allah buñ xëyee huit heures suba daan commencé ak jàngu alxuraan kuréel yi tamit danañ commencé incha allahu rabbi durus yi ñii ma nekk ci alxuraan nekk ci alxuraan ñi nekk ci xas day nekk xas kuréel kuréel yi commencé njàngoom rajas mi tamit am na fa bàyyi faal tamit incha allah dañ foora war sikkar bu ko defee ñu ne ci waañoo ne ci waañoo ni nekk ci leneen nekk ci leneen ñu ñuy woo ñuy sàkku rek ngir jëmmi sëñ Tuubaa nga xam ne moo ñu woo ci bis boobu képp kuy ñëw rek nga fexe ba méngoog ni Serigne Touba ba boo ñëwee nga jëf jëfin woo xam ne Serigne bu ñëwoon doo soppi sa jataay muy toog durus yor sa téere boo ko yoru tamit nga yor sa kurus te wàññi waxtaani ak wàññi lépp lu mu mën a doon rawatina nag maanaam ci comportement yi ndax bu ngeen seetee ban dalee def màggal fii ba léegi fu ñu ko fiy defee rek chaque année rek direction bu bees la ñuy joxe te loolu li ko war mooy fu ñu ko màggalee rek wala fu ñu defee événement rek dootu ñu ko fa defee te barab bee yaakaar naa avant ñu koy am tamit wax dëgg yàlla sonn nañ eh, xaw nañ ko yeexaam bi ko amee tamit barab bu ayib la te ña nga xam ne si dund ay jullit sax ay nasaraan ñoo ko fàggu ba mu ba mu ba mu baaxee kon ñun bu yaakaar naa bu ñuy tuddoo ak jullit di tuddoo Serigne Touba lu rafet lu ne naa ñun ñoo ko war a gën kon nag buñ ko jëlee di ko fa defee war nañ koo mën a sàmmal seen borom. kon nag ñi ngi sàkku képp koo xam ne si yaa ngi fay ñëw rek nga ànd ak yar ànd ak teggin wut yool ak ngërëmul sëñ Tuuba indi la fa waaye bul fa ñëw rek di lu la neex nga def ko wala lu la neex nga wax ko li rawatina nag mooy saa suñ jëlee barab fan luyee duñ fa yem dañuy ñëw taxaw ci buntu ba di woote lu na ñu dugg ci jël seen ay téléphone wala ñuy indi seen njaay di ko teg ci bunt yi wala ñuy wax wax yoo xam ne si ñoru leen bu leen ñoroon dañuy dem ba seen kër yi ren nag yàlla dafa dogal ne comme chaque année dañuy wax muñ dara jël nañ ci ay matuwaay yu mat sëkk am nañ sécurité boo xam ne mi ngi bokk ci organisation bi waaye teewul am nañ ay policiers yoo xam ne si jël nañ leen nga xam ne ñu ngi nekk ci commissariat boobu danañ leen teg ci buntu beeg fépp foo xam ne si euh, kii ba egg màggal gi ña ma nga fa. képp wax na noog ñoom nag li nga xam ne mooy képp kuñ ci waxal benn yoon na la bul taxaw fi nga taxaw fa ñoom am na ndigal pour jël la yóbbu la wala ñu jël sa document te loolu nag yéene wuñ ko kenn. te nag yaakaar naa ne bu fekkee ne ñëw képp koo xam ne nga faa nar a ñëw di indi coow wala ngay wax ak police yi daanaka tamit loolu da ngay da ngay yàq màggal ga te loolu Serigne Touba bu la du la ko du la ko baal ñun ñi xam ne ñoo ko organisé du la ko baal ndax mënuñoo jël suñ ay risque garanté fu suñ ay ay kayit garanté fu suñ xaalis jël place jàmbur ñoo xam ne ñi ci ëpp ñiy def loolu nag duñ ñëw ci daayira yi moo xam la duñ ñëw ci daayira yi duñ dégg soññee yi màggal ga sax booy xool duñ fa def def sax dara duñ ko fa joxe ba pare ñëw taxaw ci bunt yi jël seen téléphone di woote loolu moom ñi ngi koy ñaan bu ko fa kenn def te képp ku ko def tamit danañ jëflante yow ndax nit ñi nag wax dëgg yàlla maslaa nañ ba sonn waaye sénégalais kenn mënu ko bépp baat bu ñaaw bu ñu dégg ci dëkk bi rek genre yooyu ñoo ñu ko yóbbee nanguwul nag mayuñu kenn koo xam da ngay taxaw ci bunt ba di woote képp ku ko nar def nga dem ba sa kër wala ngay dem foo xam ne luyeewuñ ñu ko loolu nag ñi ngi ciy bàyyiloo xel nit ñi bu baax te xam ne màggal gi incha allah huit heures dañu commencé vingt et une fu mu jotee danañ ko tas incha allah rabbi ndax loolu lañ waxanteeg borom saal bi te programme boobu foofu la yem. comme nag soññi na ñi nga xam ne ñooy toog yéen ñi nga xam ne yéen mooy jànkati xas deeg mooy ñi ñooy daayira yéen moom waxaale wu ma leen te képp koo xamoon li ci jàng xas de ak ni mu mel buñ koy jàng da nga diglu ndax benn bis la boo xam ne promotion la mën nga ci amee lu ne waaye pa mën nga faa baaxle mën nga faa yàqule te buñ sañoon murit bu fay ñëw rek da nga fa yool boo xam ne wala da nga fa jëlee njariñ loo xam ne si fii ba ilaa yow mi din lay topp kon nag ñi ngi bàyyi loo xel ña fay tooy ñëpp xam naa kon damay dag foofu jox Cheikh Abdoulaye dina ci plateau bi moom it mu joxe ay kàddu bu ko defee ñu doog a ñëwaat. waaw jërëjëf Serigne Mame Thierno Mar ci soññ yu am solo yooyu nga xam ne wax nga ko fii te lépp rek jëm ci bis bi soññ yi nag daa mënta ñàkk ndax eh, màggal gi day ndénkaaneel Serigne bi. ndax mën nañ ne sëriñ bi bi muy dem ñett la fi bàyyi njaboot gi jumaay ji màggal gi te màggal gi rek lan mës dégg mu ni képp koo xam ni sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwee nag ma ci sant la yàlla sant yàlla gi nag mooy ni nga ko waxee léegi jàng alquraanul karim euh, durus ci xasidaam yi nga xam ne nii lépp ay julli ci yonent bi sallallahu alayhi la ak ay istixfar ay ak eh, ay ay ñaan eh, li ci topp itam mooy bernde nga xam ne eh, yéen lii ngeen di def yàlla dafa dogal mënu leen koo ñàkk def ndax yonent bi dafa nga wax ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nit ku ne sàmm la ca la ca la mu jiite donc kon yéen yi nga xam ne nii yéen a nekk ci dëkk bi boobaak léegi don fi ay jëwriñ Serigne Touba da na a am sasu diis waaye nag sas wi dafa war a woyof ci yéen te ñi ko mën a woyofal ñun taalibe yi dong ñoo ko mën a woyofal ndax damay wax ni tey dëkk bi li muy yaatu yaatu li muy rëy rëy màggal gi ñetti fan a ci des ci kàttanu yàlla te képp ku fa ñëw danga gis saal bu mucc ayib. yaatu lool salle boo xamee si ni deux mille personnes mën nañ faa toog am toggukaay am lépp bu ko defee nag dana la yéem boo fa ñëwee waaye fekk ne ay doomu aadama ñoo jaayante bu baag léegi nelawunu yendalunu daan daan daan dugg fu ne ngir am loolu te moonte day mënoon nañoo def benn communauté boo xam ne dañ naan képp kuy sénégalais képp kuy jullit na ci dëkk bi jógal nga wëri fu nu defee màggalu sëñ Tuubaa gi te boobaa ñun ñëpp dañoo war a jóg kon nag bu nu yàlla dénkee ay jëwrin ay njiit yu mat sëkk yoo xam ne seeni nii euh, gàddu nañ seen responsabilité sëriñ bi jaral leen loolu ñu wutal nu barab bu nu koy defee lan lan ñu ñaan mooy suñu ñëwee ci bis ba ñun ñëpp ñu dugg ci saal bi ndax bu nu la luye ab saal luyew ñu la mbedd ma dan laa am fu ñu la limité donc te yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ñooy ay jullit civilisation ci ñun la yem respect ci ñun la yem moderne ci ñun la yem fu nu nekk dañ fa war a doon ay exemplaire te ni ñu ko waxee léegi rek dëkk bi booy xool programme yu nu fi def saal bu nu ko defee tey bu ëllëgee bu nu ko soxlawaatee ñàkk ko ngir lan ngir dandut yem fan ñu yem lool te loolu jëwlu ni soññ nañ ci façon soññ bu ne kon ñuy dagaan rek sunu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi sëriñ Touba daf ni wallahu ni wal xalqu tatbauni fil barri wal baxari dha nafin bila dararin yàlla dimbali na ma mbindee fi topp nañu ma ñi ci biir géej gi ak ñi ci kaw jéeri ji waaye ñëpp bi nu ma toppee dama leen di njariñ dama leen di jariñ te duma leen mësa lor kon nag ñun bu nu lorante suñu biir waaye bu nu lor kenn nasaraan bi nga xam ne si nii nag moo la luyee bërëb na la yemal fii boo dépassé fa mu la wax lor nga ko te yow bërëb ba lan lan fay def jaamu yàlla liggéeyal Serigne Touba sëriñ Touba nag ku ne xam ne ni moom yoon wi moom amul viol amul violent yoonu murit yoon la woo xam ne lépp dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa transparent kon ñuy sàkku ci mbooloo mi bu nu teewee ca bés ba. màggal ni ko Serigne Saliou daan soññee yoor yoor la 9h programme bi dana tàmbali jëw jëwriñ yi danañ commencé jàng alquran képp koo xam ne si nii mën nga mën nga mën nga mën nga jukki nga jël képp koo xam ne nii da nga sa kurus nga nekk fa di wax astaghfirullah ndax bisub ñaan la niñ ko waxee benn bis la ci at mi te sëriñ tubaa def ne woon bu bu ñëwatee na ngeen ma ci santale yàlla Serigne Saliou ne ñaar ñu dend. bi su màggal ñëw kii fonk ko ki ci des sàggane ko ki ko fonk du du du dëñ mukk di gis li mu li mu rawee ki ko fonkul fonk gi nag maanaam mooy tënku ci ndigal rek ndax mu murit lépp ndigal la kon bu nu jàpp ne soññe bi jëwriñ Serigne Talla Sall di def wala soññe bi jëwriñ Serigne Maam Thierno Hamane mii di def da koo def ngir coobareem waaye jàppal ne kii ndigalul sëriñ Touba rek lay wax te ak bëggunoo dimbali kon noo ngi ñaan mbokki taalibe yi nekk fi yëpp ndax bi li fi ëpp ay ay jeunes lañu ndax ñoom ñi yor liggéey suñu tubaab bii wallahi azim ay ay jeunes rek lañu mënoon nañu ne dañu fay ñëw li nu fi indi di liggéey ñu yem seen liggéey waaye gàcce la ci ñun ñu ne Serigne Touba lañu yaakaar juddoo ca Sénégal suñuy jur nekkoon ci yoon wi ñu ñëw ba fii kenn ku ci nekk ne sa bopp te joyaloo fi liggéey Serigne Touba kon nag am na ci ñun ñoo xam ne volonté wu nan fu liggéey Serigne Touba bi àgg jaral leen seen bakkan di tayle seen i seen i seen i këyit ndax ab saal moom bala ñu la ko liyee da nga da nga wane ay firnde yu leer naññ da nga fa joxe xaalis da nga joxe sa document ñoon nag seen document yooyu ñu joxe ak ak seen i xéewal ngir suñu jëmm yi rek a tax kon ñun suñu ñëwee nañu respecté norme yooyu ngir jëmmi Serigne Touba ji ñu xam ne nii bés bi bésub mbégte la bésu promotion la ku mu raw lu la ci lu la ci rëcc dootoo ko dabooti lu la ci rëcc dootoo ko dabooti te màggal gi ni ma koy waxee bu jagee kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité waaye bu sooxee kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité te eh, ak léegi jëru ñu ngi soññee ci wàllu hadiya ji di soññee ci wàllu comportement yi te incha allahu rabbi ni ma ko waxee ku fa ñëw saal ba danga gis ne da mucc na ayib lool xéewal yi itam yow lu ñu la wax ñëwal toog ñu di la bernde di jàng ngay dégg kon dañ laa bëgg a dimbali kon loolu rek la mbokki taalibe yépp képp koo xam ne ni yaa ngi dégg suñu kàddu te ne ci dëkk bi nga nga nga nga bu la di setee nga ñëw ci saal ba ñu màggal bis bi te ànd ak yar ak teggin ngir jëmmi Serigne Touba bañ a dépassé fi ñu luwee ci saal bi kon jëwriñ sëñ maam cerno loolu laa doon leeral rek bëgg nga gën a soññiwaat bu baax a baax mbokki taalibe yi. macha allah sëñ Abdoulaye daanaka li fi doon tënk yëpp moom tënk nga ko comme noonu ma ko waxee rek. ñu xam ne màggal gi direction mi ngi nekk mille directorio 1445 yomb naa dem lool kon ñu bàyyi xel rek ne bis bi comme ni ko sëñ Abdoulaye waxee addiyee tamit moo koy defar te comme ni ñu koy waxee rek liggéey sëñ Tuubaa kenn du ci yërëm kenn te ku ne xam na ne màggal gi moom lu ne Sénégal daa bari kii waaye kenn mënu cee polémique wala nga ci def ndax sëriñ bi moo moo moo moo moo ko wooteel boppam ñu santale ko fu ku nekk nag fa nga nekk rek fa nga ko mën a sant ñun fii lañ nekk donte tamit lan war a def Sénégal dañ ko def waaye fii lañ ko war a sante ak Serigne Touba romb ne ay frontière kon nag dépp murit boo xam ne sa addee tabbeegu ci nga jéem koo jaayante andi ko ak yaa xam balaa màggal gi andi ko wala boo ñëw màggal nga indaale ko ndax bari na yu bari yu ñu war a def am murit du barkeelu loo xam da nga caa war a jëf doo ñëw nan maa ngi barkeelu waaye nag Serigne bi moom kenn mënu koo nax du nax kenn waaye kenn mënu koo nax. kon nag nanu bàyyi jàpp ne màggal gi rek da ngay toog croiser le bras diw moo koy def ah màggal gi dana jag te yow nanguwoo ci def dara tan mooy te ni ko muritu esthétique yi ak muritu internet bi bu waxee nga ne sun màggal gi sun nangam gi te yow defoo ci dara loolu tamit ñu baytu murit bu nekk fii ñuy def màggal gi war nga ci fesa séyéene ndax ku ne xam ne sas yu ñaata la sas yu nag dañ koy yëkkati rek néewuñu nit ki force da nga koy def waaye boo ko mënee xayrun boo ko mënu nga def sa kéem kattan am na sax ñu koy bëtt ñu koy romb kon nag nit ku ne la nga mën nga teg ko sa diggante sëriñ bi te def ko te neenal bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi woote ndax luñ ko jox rek des lañ ko jox waaye nag nan ko def ko ci bisam bii rek liñ ciy def lépp moom du ko jëriñ ñun lay jëriñ rek sëriñ dañoo bëgg a dimbali moom lépp am na kon nag képp ku ci invité di nit rek nga boo koy invité nga expliqué ko lan mooy dëgg dëgg-dëgg bis bi ak lan mooy jëm-jëm bis bi ak lañ la ñuy def ci bis ba waaye fii li ci ëpp bu ñuy invité kii dañuy wax danoo am fiesta rek fiesta moom tubaab yi tàmm nañ ko ndax fiesta bu ne la ñuy def waaye nag nit boo ko invité wax ko fiesta religion bi nga am xam ko lan lañ ci jublu ak lan mooy dee ba boo ko invité dana am noo xam bu ñëwee noonu lay comporter te nu gën a moytandiku nag liñ daan bañ ba léegi moom lañ bañ jaxasoo góor ñi ak ñi ndax barab boobu dañ faa ñëw barabu jaamu yàlla la ak lépp rek ñëwu na foofu pour foo wala folklore jàng xas da leen fay def alxuraan bernde ñu xam ne nag képp fu ñu yam am na ay sécurité yoo foo xam ne yàgg nga leen a gis ñu ay sol ay siile ak ñeneen ak ñeneen ñu ci biir ñoo xam ne ay superviseur la kuñ ci wax dara nanga xam ne du dañ laa gën a ci bis bi wala dañ laa yàpp wala dara na xam ne ndigal lañ ci am nga jëfe lan la wax ñoom ñi nga xam ne tamit ñooy dalal gànneeg yooyu ak sécurité yooyu nan nan ne ni masla ak wàcc seen i baat te xam ne façon nit bu ne la ñuy gis waaye tamit yéen ñii ñëw ngeen góorgóorlu ba sàmmonteeg liñ leen di wax ngeen koy def ndax loolu moo ni dimbali dimbali leen ku ne xam na ne bi jour journée bi yàggul la nga fay ñëw am nga ci ay yool loo boo góor góor rek suñu borom mën naa la dimbali waaye nag comme ni ma ko waxee léegi rek ñaan kenn ku fa ñëw di yàq waaye nit mën na faa ñëw ba dem du fa jëlee dara ndax bis ba tamit la nga fay la nga fay jëlee yaa ko fay jëfal sa bopp ñu gën a góor góorgóorluwaat ci lépp gën a joxante cër rek xam ne bis ba yàggul bañ ci taxaw ci bunt yi ci pala pala foofu ay nit dafay jaar wala ngay dem ci barab yoo xam ne lu yoonu képp koo fa def nag lépp lu police yi jëflante yow na nga xam ne yaa ko fa def ñun loolu suñu yoon nekku ci